Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer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 lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekkee fii ci Touba Ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou Abdoulaye Kébé. waaw ñoo ngi leen di ziar bu baax yéen waa Rafah TV di leen ndokkeel bu baaxit di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha di ko ñaanal sun borom gën a yokk ak wéram gën a guddal aw fanam ba yéene jëm am ci Cheikhul Khadim lépp sotti waaye di ndokkeel murit yëpp rawante nag jullit ji ci ndam lu rëy lii yàlla joxati Serigne Touba di leen ziar bu baax soxna si ci teewaay bu tedd bii. san la xam xam la ci waxtaanee Serigne Saliou Mbacké macha allah waaye bala ñuy dëkkal ci Serigne Touba liggéey bu rëy bi nga xam ne lislaam am na ko Serigne Touba amati ndam ci kaw ay noonam ci nga ñuy dikkal bala nga ñuy dëkkal si Saliou. waaw liggéey bu mag bii moom Serigne Touba day l'islam wax naa ko ci benn média. lislaam bi mu tumurankee bàyyi Serigne Saliou Mbacke rek a jukk Serigne Moussa Ka den l'islam ji sànku ji na woon Bamba ko dab ci biirim noonu benn Serigne rek a amoon te moo di Ahmad al Khadim kon l'islam alali sëriñ Touba la te Serigne Saliou Mbacke mii ñu dëppee bés bii dañu woon l'islam saa toolu bàyyi la ko ci bay mën ngay dimbali te kenn du bàyyi sa toolu bàyyi di booy kon l'islam alali Serigne Touba la keroog bi mu tàggeeg murid ji fii moom Cheikhul Khadim tàggoog ñoom riiri uti ci géej gi. ngir liggéey li yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom cheikhul xadim damay faral di wax ni ba muy dem murid ji di jooy maam cheikh ibrahima fall daa waxoon wax jam solo cheikh bi daa waxoon ni a bàyyi leen jooy yi gëm naa ni sëñ bamba day dem day delsi keroog ba mu fi bàyyee ummahaatu diina yi moom Serigne Touba dem ci géej gi Serigne ma fëri Ndiaye nee na damaa dem Ndiassane siyaari ji sëñ bu Kunta bi ma demee jox ko loxo mu ne ma man huwa sayxuka yow kan mooy sa Serigne ma ne ko Seexul Xadiim mu ne ma mu yóbbu tubaab yi ma foog ne daa juum ma ne ko ah déedéet mi mi tubaab yi yóbbu mu ne ma amoo xam-xam sëñ Bamba yóbbu tubaab yi daanu ko ne l'islam lañ lañ lañ lañ lañ takk ca xuru Gabon l'islam jooy ku masaam ngërëmal yàlla dégg nga sabog l'islam waaye ku dul bàyyi Serigne Saliou Mbacke jugoo ànd ak tubaab yi ne leen nañ dem mbokk yi sëñ Touba tubaab bi yóbbu ko waaye Serigne Touba yóbbu tubaab yi wa adxala allahu fi qulubi man tasababo fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila albiladi naaiya wa naala fiha fawqa sam isaariya sëriñ Tuubaa dani yàlla tabbal na ci xolub tubaab yi ngir ñu embarqué ma yóbbu ma ci réew sore yi kon ndekete tubaab bi xalaatul waaye yàlla mooy xalaat di ko tabbal ci xolub tubaab yi tubaab yi yóbbu sëriñ Tuubaa waaye lii xew tey ci symbole bu mag bii yàlla daa fay sëñ Tuubaa dama ko wax léegi ci benn média dama ni leen jumaa ji bi ko yàlla di may sëñ Tuubaa Gabon la Gabon sëñ Tuubaa lislaam da koo jaraloon lu ne dama ne taatu garab juróomi at la fa sëñ Tuubaa def mani mbaarum ñax sax timul sëñ Tuubaa mbaarum ñax tiimul sëñ Touba nekk ci taatu garab juróomi at ngir lislaam moom sëñ wax nañ ne am na benn ba ca Gabon barab bi mu nekk di jaamu yàlla moom sëñ Touba bari la fa tubaab bi di jaar sëriñ tubaa jóg dugg ci àll bi ñetti banti la sëñ Touba gor mbokk yi benn bi sëñ Touba ko koo bokk benn bi sëriñ Touba da koy diri benn bi Seexul Xadiim da koo yenu bi mu ci quartier gi moom sëñ Touba daa galan bant yi ngir bañ tubaab bi di jaar fi muy julli naka la ko tubaab bi gis jël banti sëñ Tuubaa yi tas daal di ko ni ma rabbu fii lislaam amu fi de yow li nga bëgg mooy yàq sordaar yi bi mu jëlee banti sëñ Tuubaa yi tas ko yàlla dogal na bi mu ko tasee ku ñuy wax yéeli sëy moo jug dem ci tubaab bi ne ko lu tax nga yàq jàkkaay jàmbur kii xatalul kenn mu ne ko maa ko def noonu yéeli sëy na ko danaa ko delloo tubaab bi ne ko doo ko delloo ñu nekk di xuloo tisbaar ba jant bi so ci danaa ko delloo doo ko delloo waaye diir ba ñuy xuloo ci la Serigne Touba bind xasida raditu anil mawla taala lazi rabba fuaadi wa ahnani wa kirim bihi rabba ba mu àggee ci loxo ak tub salatan maa salaamin bi alihi wa asaabihi wa jal bihi maci darax ba Seydina Jibril laa tey catu xalima gi ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa borom nee na dana la may ñaari juma benn bi njaareem benn bi Tuuba bant ba tubaab bi jëloon samp ko ci wanagam ngir naqaral sëñ Tuuba keroog bi mu jëlee bant bi samp ko ci wanagam ngir naqaral sëñ Tuuba daa itteewoo wanag waaye bi mu itteewoo wanag dugg ci wanag bi soxla soxla ndox ndakate këf gi mu sol jël sottee koo ko ci tubayam ndox mu tàng la sànni ko def këf ko fu sori ñëw wut si Serigne Touba ne ko Mbàkke xettali ma naxal ku naa Serigne bi ne ko xawma lu dul wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bant boobee tubaab bi jëloon sampo ko ci wanagam ngir naqaral Serigne Touba mooy symbole bu mag bii di Masaalikul Jinaan moo tax Serigne Moussa Ka ni keroog la taalif xasida ak raditu gaaral ko buri yàlla mu dal koy tontu wajal bihi masjidu yaa muxiitu moom la waxoon ca xasida ak raditu bur yàlla naan ko dee su yokku say juma fajur bel ak tuba ila rabbi sama sawaali xayrillahi fii maa yomba maasa xalbiya wa ahlil janba lii mooy ba baatinu juma yi Serigne Touba yi ku mel ni moom defu ko raas ci gaa yi déglul maax la jumaa jooj njaarim ja bu àggalee maax la jooj Touba ja jooja jumaa la bambalim cawal sasin ginnaaw dikku njaarim ga amal la sasin kenn du seexul xadim l'islam amatina ndam ñaari guddi ndakaar yi Serigne Touba yàlla fayee na ko tey symbole bu mag bii kon ñoo ngi ciy ndokkeel murit ji di ci ndokkeel jullit ñi di ñaan ñu yàgg koo teewee at yu bare bëri waa sëñ Saliou moom mooy sëñ Touba wax naa ko ci télé yi wax naa ko ci média yi Serigne Saliou mooy yoonu murit barki sëñ Touba Serigne Saliou mooy dëgg-dëgg sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall. aadoom a doom ñëwuma ku njëkk ñëwuma ku mujj ñoo ko faal koo ñee mu ne ñeenaa ndaw lay jamono teg Serigne Saliou di ko jëfal loolu la Cheikh da wax ndax daka neexoon yàlla defaan ma ndaw danaa jëfal Serigne Saliou liggéeyal ko ba làq ngërëm moom Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad dañu ko woon Saliou mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñun doomi Sëñ Tuubaa yëpp li xam ci yow boo ko xamoon ci sa danga da nga noppalu Serigne Fallou nee na ko sëriñ Fallou daa fekki Serigne Saliou xabaan gane Serigne Saliou ba tàkkusaani suuf Serigne Saliou génn ca buntu toog sa setal buntu ba di wargal seriñ Fallou ak kafe Serigne Fallou toog ba mu yàgg daan naa ni Saliou waay ñu ko Mbàkke ma nga nee cay setal buntu ba de la wargal ak kafeel mu ne cay sëñ cay sëñ Saliou cay sëñ Saliou la sëñ Saliou wax daa di ne daa di ne cay sëñ daan na mag ñi ma àndaloon moom sëñ Fallou dem leen ca setal buntu ba ngeen jege Serigne saaliw fas yéene barkeelu ca kafeem ga ak wargaam ga ndax mele wii Serigne Saliou mel mooy mele wa Serigne Touba doon ñaan ñu mel ko ñun doomi Serigne Touba yi waay ci Serigne Saliou Mbacké mii la ko Serigne Touba mee kooku Serigne fallu Mbacké ko seede te Serigne Fallou nee na Serigne Saliou jiñ la ko Serigne Touba wax naa ko ci benn média léegi dama leen a wax ni 1951 Serigne Saliou bay na gerte gu bari ak dugub ju bari at moomee la Serigne Fallou ne may borom jumaa ji waayi Serigne Fallou dem got Serigne Saliou jëlee addiya ju bari daal na mag ñi yëtti leen ko sëñ Saliou yëtti leen ko sëñ Fallou boo leen demee ne ko na ma ñaanal ndax yaram wi daa sutante ba ndaw yee ñëwee jox Serigne Fallou addiya ji ne ko Serigne Saliou nee na yaram wi daa sutante te bëgg na nga ñaanal ko dañu dem leen jëli ko keroog bañ jëlee Serigne Saliou aliye lañ ko wàccee keroog bañ ko wàccee dañ ko jàppoo na ko léegi si rek ndeysaan Serigne Fallou tàccu ko Saliou mu ne ko Mbacke xaw ma woon fii la tawat gi toll de dara du dal yan bee teel a di sax nga teel a doon sëñ Tuubaa Saaliw mu ne ko Mbakke mu ne ko da nga wér da nga gudd fan te boo liggéey man Serigne Fallou danaa la seere ba ca kanamu Serigne Tuubaa na loo yor jox nga ma ko man Serigne Fallou Serigne Fallou seedeel na loolu Serigne Saaliw may faral di wax ni Serigne Saaliw mooy sëñ Tuubaa ba si njaareem sëñ Tuubaa dañu woon aw ma doom de moo ko sëñ fallu ak Cheikh Moustapha ak Serigne Mor Roqay Bousso ak Cheikh Massamba aw ma doom la wax. waaye Serigne Saliou mii saa dooma bés dañoo nekk ci nekk coow la bari sëñ Touba fëgg ko ci ñu daal di daw naka la ko Serigne Saliou romb rek sëñ Touba téye ko sëñ Saliou mel ni kuy xëccu sëñ Touba jël ko ba tef ko ci luppam ne ko Issa Diagne Cheikh Issa ne bëreet mu ne ko kaay seere Issa mu ne ko Mbacke wu ma doom waaye séeréer li Serigne Saliou Mbacke mi saa dooma sëñ Saliou xëccu daw bi Serigne Saliou xëccoo daw sëñ Issa da ko ne Saliou mu ne ko Mbàkke wari sëñ Saliou ba gis ko jëmu la joo xam ne moom sëñ Saliou képp ku mu amanteel wëllëree yàlla nga ko amanteel Cheikh Issa nee na may dox ci kees yi di dox si kees bo ba fekk ko ci ginnaaw waajur moo soxna Faat Jaxate lamb sama jiba ñetti dërëm ngor du teg ko ci loxob Serigne Saliou na ko Mbàkke bul ma fàtte te Serigne Touba moo ne woon Issa Diène mu ne ko Mbàkke demal lagan ma fekk la faak la gën Cheikh Issa Diène dem lagan pël yi ko mu dand barab ba Cheikh Abdou Sakor Fall doomi Cheikh la nee na damay dox ci lagan ba mu yàgg dégg pël yeeg taaxuraan naan lagan de bay saal foofa ginaar dafay mbuum mu ne leen saal man ngeen wax ñu la ko saal ardo gi ci ni ma laa bokk toog saal moomu de taax guddi yi ma gis mbooloo mu bari mii lamp yi leer yi bokk toog saal ardo fa Cheikh Abdou Sakor Fall taxawoon fale Serigne Saliou Mbacke sanc daaray lagan mbokk yi jëmtal na ci biiri wax ne Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba nañu sant yàlla bu baax bi ñu yàlla defee ndaw ñu jamonoonteeg Serigne Saliou nee na diw mu ne ko mbakke mu ne ko man Saliou day rus na maa jamono teeg nit muy dee dem sawara ku baax nee na ma ku baax nee na ma góor jéy mi daan dawale Serigne Saliou foofu laay daaneele sama kaddu Serigne Saliou de ko yónni njurul ngir mu jëlib añ waaye bi mu jëlee añ bi bay ñëw fekk ne fa donga bu tawat mu jël donga bi jaar ak moom hôpital ñu saytu yaram yi biñ ko toppatoo ba noppi mu indi ko ci kees gi na ko mbàkke day dama dama ko fekk ca daara ji yaram yi sëñ bi ne ko waaw waaye teg ko noonu te dem defaree kafe gi góor yi nee na bi ma defaree kafe gi bay ñëw dama fekk Serigne Saliou di tuuri xéewal rongañ jaa ngi dal ci sikkim bi ma taxaw diir mu may xool ba mu yàgg moom sëñ bi ne ma góor a ma ne ko mbàkke mu ne ma xanaa danga ngaa jaaxle ma ne ko mbàkke jaaxle naa de mu ne ma lu ma dal gone gi ma ko teg damaa xool gone gi yërëm ko di ko ñeewante ko laddanti ba yàgg gone gi xool ma ne ma Saliou ma ne ko mbàkke mu ma yaa ma a sama ndey yaa ma gën sama baay rongañu Serigne Saliou Mbàkke daal di tuuru ku baax nee na ma fekk na Serigne Saliou bés tànkum da joor beeg loxo bi new yi campagne bi Serigne Saliou tëdd mënta jóg pour wax leen ne yërmande yàlla mooy Serigne Saliou mbokk yi campagne bi Serigne Saliou tëdd mënta jóg nee na ma di ko xool ba mu yàgg di ko xool ba mu yàgg ma ne ko Mbàkke tee ñëwoo médecin bi la Seex Béthio booleel sëñ bi ne leen déedéet daam lu daan gaar sëñ Touba damay gaar ma ni sëñ Saliou Serigne Toubaay baayam te moo gën a bëgg ñëpp sëñ Touba bu gis bu déggee turu sëñ Touba jooy bu gisee photo sëñ jooy bu gisee bagage sëñ Touba jooy bu gisee mag mu gis sëñ Tuubaa te muy dëgg ronga ñu sëriñ Saliou yi daal di tuuru mu ne leen jege si leen maam lu ma leen laay biire daam lu daan gaar sëñ Tuubaa te damay gaar te saa ma gaare ma sant yàlla daan na ko bàkke dafa nekk Gabon moom sëñ Tuubaa barab bi mu nekk yàgg gam fa yàgg tax mu jàmbat ci xelam na yàgg naa fi nee na sallahu day sun borom daa sam ay xorondong sëñ Tuubaa xorondong yu bëree bëri ña ngay sam cërimu sëñ Tuubaa di ko mat dara jaa toq toqati suuf waaye xorondong yaa ngay mat tuuti kaw waaye Serigne Touba ngi ciy sant yàlla nasaxtu bi sukuri si kaayatan fala askuluhu duri wadura fala folli naa njàmbat ci sama lammeñ man sëñ Touba saxal ci cant Serigne Saliou nee na sallahu day xorondong yëpp daa wàcc sëñ Touba noppalu daan ne Makhtar Diakhaté mu ne ko Mbàkke bu ngeen gisee samay tànk ak loxo yi di néew yi bu leen ma yërëm Makhtar Diakhaté mu ne ko Mbàkke damaa dëkk ak doomi aadama yi te dañoo dëkkee tooñ tooñ tooñ yàlla musiba rek balaa yi leen suñu borom di wàcce damay ñaan man Serigne Saliou Mbacke moo koy teg daan ne Maxtaar mu ko Mbacke xanaa boo dee ñaan balaay doomu adama yi suñu borom di ko teg sëg dund du neex rongo ñu Serigne Saliou Mbacke daal di tuuru mbokk yi nañu gën a jaamu yàlla te xam ne Serigne Saliou mooy lislaam téeméeri at yu manqué juróom-ñetteel la Serigne Saliou dund fajar gi muy wuy ji boromam kurus gaang mu téye ci loxom mbokk yi man ni nañu gën a góorgóorlu nañ gën a góorgóorlu lépp lu ñu war a am sëñ Saliou defal nañ ko moo ne rus na maa jamonoon teg nit muy dee di dem sawara ak lim dudd ci ay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 lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekke fii ci Touba Ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou lay Kébé